tub caane mbay la ndax caane mbay moo jur xaar mbay xaar moo jur njóogu njóogu moo jur soxna asu sàll soxna asu moo jur garas mi bu dee ci wàllu baayam caane moo jur faati mbay faati mbay moo jur masay njaay masay njaay moo jur yusufa njaay yusufa moo ko jur loolu laa doon bëgg jàllal wasalaam ak santam di len ñaanal jamm di len dalal jamm di ñaan jotaay bi yalla ci serigne touba gëna wassal wasal jotaay bi yalla suñu borom duggal ci bir jamm ak salam jotaay bi yalla ci suñu borom defal gudd fan ak wër gu yaram yalla suñu jotaay bi yalla ñu ci serigne touba defal saadu daare ni yalla man nañ ko yalla ñu ko defal gënaaw lolu tay dañoy yendoog suñu bokk suñu mbokk yan la ñu bokk jenn maam maam yi nekk juróomi maam yoo xam ne yépp seen seen deret moo daje fii tey ji am na ci ñoo xam ne nii muy délégation bi fi jëkk ñëw muy délégation waa kër maam Demba Ka te Serigne Ka nekk ca bopp ba mi ngi fa yebal soxna cekkale yi ak xarifaal ak soxna mami Diop ñooñu yaakaar naa ñoo jóge kokki te it ki leen yebal muy sëriñ ku mat la ku amuk taalibe la ku dëggu la yàlla na ko sunu borom saxal te dëgëral ko moo ko njabootam beneen délégation bi ci topp ñëw muy tax mu taxaw fii ci buntu kër bi jóge Dakar muy Serigne Ablaye ñan ak euh, Boubacar ah ak asgay ak Serigne yag ñoñu moy de euh, deuxième délégation bi té Ablaye Ablaye ñan jité ko té walu jigen ñu ba soxna Maguette Ndiaye ak soxna Aminta ak soxna Ndey ak soxna Kumba Kumba Ndiaye ñooñu ñooy délégation bi beneen taxi bi nga xam ne moo jógee dakaar yàlla leen yàlla tegaat ci yoonu jàmm seen i ñëw rafet na seen taxawaay rafet na yàlla leen ak mbokk fay te kat loolu ndeysaan may leen ñu àddee yi déglu nag ku déglu ku déglu yàlla nga gudd fan ku dégluwul nag yàlla nga gàtt fan te dama tàng nag wax naa leen lu mel ni midi. muy délégation bo xam ne serigne Modou fi muy waxee maanaam dafa kawé lol ñepp la yëna jamm jàmm ñëppay fantim waaye nañ ko sarax di laay war a ak deglu waaw xam nga gannaaw ab délégation dañu ñëw nit fu nekk jóge nit dëkk bu nekk jóge fa bu doon sama bu doon sama sago da ngeen ñuy bayyi xeyna ñepp ñëpp duñ leen mën lim. waye ñi nga xam ne am nañ porte yoo ñent nit lañ ñooñu dañ leen mëna lim waye lu mel ne itam dafa kii dafay am na yoo xam ne dañ koy tënk rek nga xam ne dañ koy jagal nga xam ne nii bu buñ ca tuddee juróom-benn nit nag yóbbaale na ñëpp dégg nga li ma leen wax. loolu na moo tax ñu lim ñooñu nga xam ne nii xam ne ñu bari na ñoo xam ne nii mosu ñoo gisante te bu ma sañoon ñoom ñu ñëw taxaw fii pare ñu présenté leen ku nekk xam leen ndax loolu mooy dugal mooy dundal ak bokk te man li ma leen xamal nii damaa bëgg baas bii koo xam ne képp jóge woon nga jóge nga Ndakaaru. wala nga jóge Touba ñëw fekk fu waa Louga bu ma sayoon am na ñu ci xam sax waaye am na ñoo xam ne genn wàll gi xamuñu ko muy ñett ñooñu nga xam ñett ñooñu nga xam ñooy présentation bi ñooñu. ba tey am na ñoo xam ne itam ñëw nañ fi ngir dëkkandoo ngir ak mbokk ngir ñoo bokk maam kon tuuti rek ñu présenté ko. maanaam day ñett day ñetti néeg rek xam nga boo nee may sa ne sayr ndende ah day ñetti néeg yoo xam ne daanaka may sa ñetti néeg a mu ngi kër njugo kër njugo njugo ak Cheikh Mbaye Thiam ñoo bokk ndey ak bàyyi seen ub jigéen Fatma Thiam lii kii taawu may sa sama yaay muy Fat Thiam may sa la be mooy taaw ci kër ga muy muy muy muy ñetti néeg yooyu loolu mooy néeg may sa ah doy na ah waaw dégg nga dañu tënk rek bu ko xamee ñett néeg yooyu fàccaama ca mag anta caam ah dégg déglu ma tuuti rek fàccaam mooy taawu may sa ak mataar caam ak anta ñaan caam anta ñaan caam doomam a ngi fi ñëw na léegi papa Guèye papa Sayer Guèye mi ngi ci biir baas bi tey eh, kooku xale yu bari Touba nii xëy na sax am nañ ñoom ko ñoom Fatou Diop ñi xam nañ ko waaye geneen yi tuut tuutaan yi dañ ko mën a xam bay Babé Gueye mooy papaam Babé Gueye ak Astou Gueye yaay ñoom xari maam ñoom xarifaal mi ñoo bokk ndey ak baay kon néeg boobu tim jóge jóge Darou si ñoom ñu ngi fi ñu ngi fi ndax Abdou Fall a ngi fii doomu doomu Ami Diop fi lay yendu mi ngi fi ci xale yi kon buñ sañoon néeg bu nekk dañ koy tudd ñu xam ne jóge na fu même maam amee ngi fi sax maam yooyu jóge ngi nii mi ngi nii mi nii kon buñ sañoon ku ci nekk dañ koy def présentation ñëpp xamante day ñëwaat waaw kay jërëjëf bu ko defee dañu amoon yéene bala ñoo jox kenn kàddu gi jiital kilifa yi waaye suñu mut jóob bi daa bokk ci kilifa yi moo sax ñu jox ko kàddu gi mu doon leeral li mu doon leeral waaye am na solo kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm bu ko defee kon dañoo wax ne Serigne Gora Mbaye di kilifa ci jataay bi rawatina mbooloo bi nga xamante ñoo bàyyi ko Touba moom lañ bëgg kàddu gi ci kilifa yi mu waxtaan ak mbooloo mi fàttali leen itam nan la mag ñi daan sàmme ak mbokk ak daan ko dundale ak mbokk ci ab tënk bu gàtt rek incha allah bu ko ci keneen ci kilifa yi ndax kilifa yi bu dee wàllu image bu leer filmé bu professionnel